wax ji amoon diggante Pape Cheikh journaliste ci Sen TV ak Pape Ngagne bu TFM jéxagul ba tey ginnaaw bi fi Pape Cheikh Sylla xasee waa Oxygène ñi fay liggéeyé mer am lu leen naqari lool bañu dakk dàq jabaru Pape Cheikh Sylla. Sidi Lamine bu né day wax parcours am ci presse oh, on est d'accord mais Pape Ngagne lan la def Oxygène c'est quoi Oxygène ñir les ratés de de de la banlieue ñoy dem Oxygène ñoy dem centre sauvegarde man banlieue bobu la juddoo la judo magge màggee diggante Géejawaay Caaroy Biafra ñetti mbar fala magge dem dex dem syndicat dem fep football fa basket fa def fa lepp sama différence ak ñom am luñ dundul luma fa dundul foofu ci banlieue différence ak ñom moy dama bok ci pourcentage bu ndaw bi am entrée en sixième pourcentage bi ndaw bi am bfm, am bagam après limaamu laay dem université def concours bo xamanteni des milliers de sénégalais ñoo koy def à l'époque bi ma koy def concours CESTI Ben yon laa ko mës def admiko 35 sénégalais lañ doon jël sur plus de 1000 ma bokk ci ñiko ko admis def journalisme ñëw ma par infraction ñëw ma di xëccu lu lu nga xamanteni ni euh, yellow ma bind nak mo xaw dinañ bind <laughs> moi j'ai fait littérature j'ai fait lettre moderne J'ai un diplôme lettre moderne j'ai maa un diplôme de journalisme aussi. Je l'ai naa je l'ai naa bind dañ bind et eh, dina ci tontu ci tontu mais c'est méchant et pour la postérité il y a des ni mënuñu ko bàyyi mu jàll lii lancement bi la rek euh, précision pour nous, nga euh, j'ai reçu pas mal de réactions euh, de Wolf et puis de partout ku si nekk ak ni ko ses responsabilités mais moi j'ai pris la décision de répondre et dinaa répondre sous d'autres formes. nit sol seen dàll ngir defaraat diggante Pape Cheikh ak Pape Ngagne Diagne ku ci mel ni Lamine Samba doon liggéeyee Oxygène nekk léegi TFM di defaraat diggante Pape Cheikh ak waa Oxygène ñun bi ñu mujjee dem rajo Oxygène dañ ñu ni woon duñu ci wax ndax bëgguñu may Pape Cheikh Sylla bi fa Lamine Samba demee nangu nañu Pape Cheikh ñëw fa baalu. wante laaj nañ ko tamit mu defaat beneen vidéo comme bi mu defoon di leen xas wax ci ne dafa juum waslu xaq ñun waa Pikine ni bañ woowee Pape Cheikh Silla ngir vérifier information bi mu xamal ñu ne dina dem oxygène ngir waxtaan ak ñoom wante waxuñu ne dafay def excuse publique bu ndox tuuroo an bàq moo ci des